ni nga xam ni noonu la Ousmane Sonko war a wuy jee fële nga xam ni moom moo di palais de justice. waaw damay njëkk a leeral rek ni dossier bi du dootul dossier lapsus. Mm-hmm. mais procureur daf ci dugal quand ñaari chef d' inculpation yu bees. nekkatu ko quoi. jar na fàttali. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, injure publique ak beneen bi lan si la sax encore. Hmm. faux et usage a faux. faux et usage de faux en document administratif. donc euh, ñaar yooyu euh, procureur moo ko ci yokk kon politique dugg na ci. li koy wane rek. mooy ni procès bi di déroulé woo tey nag euh, ñu am lu ñu naqari euh, bépp démocrate am lu ko naqari ndax jaay doole bi ci réew mi dafa ànd ak ma tey démb rek euh, ma leen di massaw Pape Matar Diallo bu Walfadjri ak Mame Birame Wathie dañ leen agressé oto bi leen agressé identifié nañ ko a trent 939 ëpp EP mooy établissement public. te ñu bëri nee nañu auto enseignement supérieur la boo xalaatee enseignement supérieur dangay ngay xalaat université. cour mhm. kan moo fa nekk Maguette Sène amoon na antécédent ak Guy Marius ba mu demee ci goxam. Mhm. ñu jóge ci loolu tey yëg ngeen ni. am na ñaari journaliste yu ñuy arrêté sànq. cité kër góor gi kon loolu yëpp dafay laaj liberté parce que journaliste du ko ñuy agressé journaliste du ko ñuy arrêté. kon suñu démocratie mu ngi dellu gannaaw léegi un citoyen. bu dem wuy ji ci yoon ba ñu renvoyé procès bi muy ñibbi lan moo ci nekk. ñëpp gis nañu Ousmane Sonko ci biir otoom. ñu naan ko wàcceel sa vitre tijjil oto bi. mu woote ni nañ ma jox commissaire bi ma wax ak moom téléphone. mu wax ak commissaire bi téléphone xaw ma commissaire bi xaw ma kan la waxal téléphone ki mu waxal téléphone daal. nee na ko na wàcc oto bi mu ni ko man du ma wàcc oto bi parce que am nga assez de sécurité pour encadrer ma ba sama kër. waaye man du ma wàcc ci oto bii di dugg ci beneen oto lu dul ma nekk en état d' arrestation su fekkee ni dama nekk en état d' ngeen wax ma ko. kon kooku nangu na bu nekkoon en état d'arrestation wàcc dugg autopolice mais nekkul en état d'arrestation ñu dajji vitre am nga xam ne mënoon na ko gaañ mënoon na xelleeku ci kanamam. Mhm. mënoon na tis ci kanamam. lu nekk mënoon na ci am. ñu ko toj ci kanam te loolu ñun bu ñu ko defoon. Mhm. ñu yóbbu ñu chambre criminelle pour destruction de biens appartenant a autrui. parce que loolu dañ ko yéegal dañ ko criminaliser léegi depuis 2021 bi ñu soppee code pénal ak code de procédure pénale. Mhm. ci àttey terroriste. kon ñoom force du désordre yi ñoom noonu laa leen mën a tuddee ñoo semer le désordre te loolu yëpp dafa mel ni ñoom dafa mel ni Macky Sall ak ay nitam ak waa kër général Moussa Fall parce que GIGN la gendarmerie dafa mel ni ñu ngi uppee boor bu ne pour dëkk bi boy liñ ci jublu nag duñ ko ci am xaw ma lan lañ ci jublu mais duñ ko ci am. askan bi di gën a gis nga askan bi. Mm-hmm. su waree xeex. li koy déclenché du ñoom ñooy joxe la coup d'envoi du ñoom ñooy joxe la ton du ñoom ñooy créer incident ba lii am am actuellement fi may waxee nii mhm. bi ñoo na mu ngi am ay yëngu-yëngu maa ngi fexe ñu yónnee ma image balaa ñuy pare émission bi parce que Sonko waa foofu la mhm. ñooñu gis nañu lu leen metti ñu gis seen nit dàjji otoom ci lu dul dëgg mhm. gis nga loolu dafay indi xaal xaal boobu la ñu bëgg mu déclenché wu pour ñoom ñu mën a def lu ñuy def parce que dañu am objectif ak ay cible te ñun ñii ñëpp ak y compris man miy wax ak yéen ci seeni objectif ak ci seeni cible la ñu bokk le fait que ñu attaqué Mame Birame Wathie ak Pape Matar nga xam ne yàgg nañu wax ni dañ leen di saaga ci seen téléphone dañ leen di menacé ci seen téléphone ba noppi am na information boo xam ne mënu ma ko joxe ci place publique bi mais xam naa ni ñoom ñu ngi ñuy lijjanti pour le moment nii. yàgg na seen bulletin de renseignement ak seen yooyu yëpp ñun xam nañu. Mm-hmm. ñoom lu ñuy doxal dama ci bañ a xuus ñuy am njort pour localiser pour jéem a xam fu seen jóge mm-hmm. mais xamante nañu ñoom lu ñu lal ñun xam nañu fu ñu jëm kon tey jii ñu ngi def tout pour semer l'instabilité dans le pays la léegi nag. Mm-hmm. nit ñi doon wax ni Pastef ay nitu fitna lañu nañu am ngor. ak dëggu wax kan moo fii nitu fitna parce que li am tey dafa wane carrément ni nguur gi dafa am stratégie de provocation dafa am kuy chercher incident pour embraser ce pays là parce que tey la ñu def noonu kese kese kese mënoon mënoon na taal dëkk bi gis nga waa Bignona mënuñu ko muñ te moo ne usman Sonko mhm. am na lu mu doon wone fitna judd. effectivement parce que tey gis nañu ci état boo xamante ni si ni quand même mosuñu ko ci gis mais est jàpp nga ni lii am fii nii ñi di force de l'ordre yi parce que euh, ay euh, hommes politiciens yoo xam ne dañuy toog di woote parce que ñoom est-ce que jàpp nga tamit dañu topp ay euh, ordre yoo xamante ni si ni xëy na ñoom waruñu ko topp ba li nga xam ni tey moom moo am am ko parce que ñoom aussi tamit ñoom am nañ ci part de responsabilité quand même ak lu ñu mënti wax. dama bëgg daaneel analyse boobu. Mhm. ba noppi ñëw ci force de l'ordre wala ma tontu foofu ci parenthèse parce que force de l'ordre dafay obéir à un commandement mhm. boo nekkee euh, euh, homme de tenue mhm. militaire wala gendarme mhm. booy def sa formation bango li ñu leen njëkk a jàngal mooy les ordres sont à exécuter sans réflexion ni murmure la réclamation n'est permise qu'après l'exécution des ordres loolu lañ lay formater les ordres sont à exécuter sans Euh, euh, réclamation ni murmure. Euh, mm-hmm. la réclamation n'est permise qu'après l'exécution des mm-hmm. ordres. kon yow bu ñu la nee prenez-le doo xam ndax am nga mandat d'arrêt. Mm-hmm. wala mandat demane wala dara. wala walla wala ordonnance de prise de corps wala soit transmis wala benn kayit bu jóge ci magistrat bu la may nga jël disposer. du corps de l' individu parce que loolu lu ñu def prise de corps la loolu juge moo ko war a dogal mais comme gis nañu kilifaam ni ko prenez la mhm. l' exécutant il ne réfléchit pas il exécute l'ordre mhm. léegi le supérieur nag moo porte responsabilité moo tax ma ni général Moussa Fall ak ay nitam GIGN ci commandement am la nekk mhm. te général Moussa Fall suspicion ak soupçon bi pesé ci moom toujours ci act yi gendarmerie di posé da koy firndeel parce que ba léegi gendarmerie deful benn communiqué ci disparition Didier Badji bi nga xam ni il était sous tey jii bu ñu sañee dajji oto jàmbur toj vitre jàmbur pour jël ko disposer de son corps récupérer casque casquette am joratu euh, ko mhm. yoratul casquette dugal ko ci oto boo xam ne xamuñu lu nekk ci oto bi xamuñu ñu nekk ci oto bi te ci photo yi gis nañ ci ay nit ñu weex ñu sol tenue mais nga gis seen xar kanam weex comme ay tubaab te ñëpp xam ni israéliens ñu ngi fi en formation israéliens ñu ngi fi en formation CRS ay alkaati français pour maintien d'ordre ñu ngi fi tamit ay en pour former suñu takk der yi annoncé woon nañ fi mille policiers et CRS. Mhm. yu ñu indi Sénégal pour loolu. tey jii bu luy amee ñu gis ay takk der yu weex lu mënul am ci seen i dëkk ñoom seen dëkk du ñu jël benn homme politique dajji otoom. Mhm. pour jël ko te amuñu këyit amuñu dogalu juge wala dara te même bu ñu amee dogal sax. Mhm. du ñu def effraction ci bien d'autrui du ñu dajji toj. vitre jàmbur. pour pour pour jël ko bu fekkoon dañ ko bëgg a arrêté dañ ko bàyyi ba mu dem këram. Hmm. ñu arrêté ko wala ñu convoqué ko mais toj loolu yëpp pour nii dañ lay yóbbu ba sa kër uniquement pour bañ nga drainer ful. loolu atteinte jàppoon loolu am na lu ne ci ginnaaw peut-être. lépp mën na nekk ci ginnaawam parce que may lancer message euh, boo xam ni parce que euh, dem naa kër Ousmane Sonko sànq. Hmm. ñu baare ma ñu ma doo dem jot naa dem ci beneen koñ bi ñu baare ma ni ma doo dem dañu tëj koñ bi ma ne ko mais est-ce que lañ ñu ko tëjal ñun doomu aadama nit man yoruma oto Ousmane Sonko laay seeti ñun ma doo dugg ci koñ bi dañ ko tere kooku ay ordre lay exécuté mm-hmm. dañ ko ni bu fi kenn jaar mm-hmm. moo tax jéem ma fa nekk sax di xëccoog moom di indi ay effectivement lépp mën na ci nekk mooy ñun dañu jot xibaar bitim réew. Mhm. Russie. Russie pour ñu àggale ci noppu Ousmane Sonko. Mhm. ñu war na def euh, loolu sax mënuma ko wax fii ba loolu sax lu mënuma ko wax fii. <laughs> allez-y. non non non que parce que yi am nañu pexe sax mën na laxasu. ca ca la mu ca la mu war a def mais ñoom wóolu wuñ leen il y a des raisons de douter de li tax ñu bëggoon disposer du corps de Ousmane Sonko mais moom mais bu dee pour mu dem këram rek la bañ a bañ a drainer foule. Mhm, effectivement mais nañu escorter oto ci ci li ñu daaj oto bi dugal ko ñoom ci seen oto bopp. waaw loolu ci oto bi ñu ko dugal delloo ko këram. dafa nekk loo xam ne kon tey jii euh, confiance amu ci kóolute amu ci. Euh, lu mënti dal Ousmane Sonko. Mhm. ci feebar ci dara. ci semaines yi ak mois yi nekk suñu kanam. Mhm. duñ leen ci écarter. xam nga coow amoon na fi ci décès imam Alioune Badara Ndao ba ñu tëj ci Cheikh Omar Diagne ak Abdou Karim. gis nga ñun wóoluwuñu li am tey dal suñu xel suñu njort nag. ñun ñoo ko moom kenn mënuñu ko tere exprimer Ousmane Sonko lépp lu ko dal ci feebar ci fan yi nguur gi seen loxo du ci génn parce que ñoom ñoo ko jël ni ko ci dugal seen oto ci lu dara justifié wul. moom ak son avocat Ciré Clédor Ly waaw léegi euh, gis nga réew mi. Mhm. dañu jël yoon teg ko fële. indi doole teg xam nga oto établissement public. Mhm. bu demee bay agressé ay journalistes yu ñu daan menacé euh, y' a problème. Mhm. te ñooñu ay amateurs lañu sax parce que qu'ils sont identifiés AA 939 EP. numéro boobu jàpp nañ ko te ñu ngi ciy liggéey te dinañu xam ñan la te plainte dana am te te bu yoon deful liggéeyam. Euh, euh, muy muy agression maam mbiram waj bi ak waaw bu yoon deful liggéeyam mhm. ña def ak ña ko santaane mhm. euh, ñu ci góobee nañ ko gar ña ko def ak ña santaane mhm. surtout ña ko santaane te am nañ ci une idée claire parce que dafay yomb trop nga yebal nit mu agressé nit nga riposte ci ki ñu yebal bàyyi ki yeble la riposte doit s'abattre sur les commanditaires d'abord avant de s'abattre sur les exécutants loolu mooy yoon te loolu mooy am incha allah ñoom nag bu fekkee ni ñoo gën a nekk nit ñi góor parce que am nañu gendarme ki police yi ak ay instructeurs yu jóge ay France ki Israël am ay équipement yu bees ak yooyu ay lacrymogènes yu bees ak yooyu jàpp ni mën nañu noot askanu lëm jaaree ko ci Ousmane Sonko dañuy nax seen bopp parce que l'exercice d'une liberté elle est sacrée parce que tey jii Sénégal dafa war a dem dans les juridictions internationales parce que dañu dañu briser dañu détruire bien wu leader politique pour conduire comme manu militarisé lui muy acte un acte mhm. deux mu génn mu bëgg a génn pour def conférence de presse waaw ñu ni ko yow doo jóge sa kër mu dox ba jëm bopp ko ñoom mhm. ñu sànni ko fa ay lacrymogène mhm. effectivement masque à gaz le sol masque à gaz le sol parce que li ñuy di disséminé ci air bi kenn xamul lan la gis nañu sax mu jàppanteeg garde du corps parce que il fallait ko moom il pare que moom euh, euh, bëggul woon a delluwaat ci këram tey biñ ko di delloo moom Ousmane ko waaw mais xam nga il est soumis à un protocole de sécurité mm-hmm. euh, loolu dépassé na ko donc bëgg-bëggam dañ ko dañ ko dañ koy dañ koy dañ koy bañal lenn li mm-hmm. parce que tere boobu teguñu ko fenn muy mel ni jour bi mu yoree bal bi di di décontact di génn noonu mm-hmm. mais ils ont hésité à l'arrêter mais dañ ko bëggoon tere mu génn mais tey des consignes ont été données te dañu dañu évoluer d'un cran dans l'agression contre cet homme gis nga persécution boobu nag dafa war a leer léegi ñëpp Sénégal kan mooy nitu fitna est-ce que Ousmane Sonko mooy nitu fitna est-ce que il n'est pas dans ses droits de se défendre et de riposter est-ce que moom dafa war a appeler au calme wala au dialogue ak liñ kat dañ ko sës ci mur bi koo sës ci mur bi nag séntu ko sa kaw koo sës ci mur bi séntu ko sa kaw kon tey jii mhm. la posture est une posture radicale parce que nit ki mënuñu la agresser jusque dans tes libertés les plus primaires tere nañ ko fi dem julli ji mhm. tey tere nañ ko fi def conférence de presse une activité politique mhm. une activité liée à la à la démocratie à l'expression d'une opinion nga refuser ko par la force kii c'est la dictature léegi nag Pastef mës naa ko wax Ousmane Sonko dafa war a am un chargé de relations diplomatiques gis nga PDS dafa mës a tout le temps am koo xam ni mooy nekk en rapport avec le parti et les chancelleries excellence sax lañ koy wax parce que c'est un chancelier c'est un chargé de mission diplomatique PDS euh, euh, euh, Pastef toll na foofu ci carrière dafa war a jëflante ndaw bitim réew yi nekk fii Sénégal ci lépp et de façon régulière te am na ku ñu war a préposer à cette fonction là parce que bataille bi du bataille d'opinion rek la mais bataille diplomatique la parce que c'est un présidentiable dafa war a am CMD comme ni ko PDS yàgg amee. avant bien avant muy jël pouvoir y avait tout le temps quelqu'un c'était c'était je je veux pas me tromper y avait tout le temps quelqu'un ku doon dox diggante partie bi ak extérieur bu ñu bu ñuy lijjanti ay yenn conférence internationale yi bu ñuy invité ay hommes d'affaires boo gisee Ablaye Wade mhm. ay Alain Madelin ay ay ay ay ay ay hommes politiques français lañ mhm. daan ñëw sax ci ay manifestation loolu travail diplomatique la mhm. Pastef toll na foofu. d'accord léegi loolu permettre mooy. yu nii bu amee. Mhm. boo bokkee ci ay kuréel. Mhm. wala nga am action diplomatique da koy porter le plus loin possible ba ci Nations Unies le faut ba ci yi ñuy régler les problèmes parce que y une violation des droits de l'homme au Sénégal y a une violation des droits de Ousmane Sonko y une persécution de ousman Sonko et des atteintes contre lui léegi. bu porter plainte contre gendarmerie léegi ban suite lay am parce que ñoom attewuñu yoon ban suite lay am tey jii bu militant Pastef ñëwoon dem toj benn oto jàmbur ñu jàpp ko mu ngi chambre criminelle kon nguur gi lu mu mënul defloo ay militant am pourquoi ay homme de nangu di ko def surtout que quand on soupçonne très fort que Moussa Fall désidérata Macky Sall moo ko fi moo ko fi bàyyi maanaam ay bëgg-bëgg Macky Sall moo ko fi bàyyi lii nag dafay conforter ci ñun ni euh, euh, euh, commandement commandement gendarmerie tëddeewul njaaxanaay ci maintien d'ordre parce que Mame benn gàngoor topp ko waaw benn alkaati topp ko kenn néewu ko dañ koy conduire këram par force kenn sañu ñëw di toj otoom pour génnee ko ci pour yóbbu ko këram de force pourquoi Ousmane pour quoi ñu bëgg ko tere mu dem conférence de presse conférence de presse c'est normal pour tout leader dagg nañu signalu Walfadjri yi ci bëgg-bëggu benn nit. sept jours ñoom d'ailleurs woote nañu suba manifestation tey jii dara leeru ma ni dinañu assiéger Ousmane Sonko ba suba du mën a ñëw Walfadjri parce que bu ñëwee foofu fees étau boobu autour de de son quartier de son domicile. dañ ko war a lever dañ ko war a briser parce que il n'est pas en résidence surveillée il est en liberté il est en liberté mm-hmm. Ousmane Sonko kenn condamné wu ko amul benn restriction de liberté mm-hmm. amul assignation à résidence amul benn acte juridique bu ko perm bu ko bu ko tere mu dem ak dikk mu def conférence de presse mu mën ay activité politique am normale léegi Macky Sall est-ce que nit ñi dinañ ko nangul au-delà de Pastef parce que affaire bi dafa jéggi Pastef man j'interpelle tous les démocrates et toutes les personnes éprises de liberté mmh. problème bi du problème mu Ousmane Sonko wala Pastef c'est une question de démocratie gis nga man mii mm-hmm. dama xeex lu yàgg pour démocratie depuis 88 yii bu mu ko gisee man lay gën a metti parce que daf ñu delloo gannaaw ci ñun li ñu amoon ci ak yi ñu delloo ko gannaaw léegi ñuy reconquérir ay liberté qui étaient déjà toutes acquises ndax Macky Sall dafa bëgg a imposer fii dictature parce que bëgg na troisième mandat te kenn du ko mu bëgg a éliminer son vis-à-vis muy Ousmane Sonko mais pourquoi na utiliser ay armes légales constitution bi nee na Macky du dem constitution bi terewul Ousmane Sonko dem loolu moo nekk Sénégal ki warut a bokk moo bëgg a bokk par force ki war a bokk ñu bëgg ko éliminer par force loolu nag buñ ci jubloo yaakaar ni jàmm lay indi ay naaféq bëgg a jël tort bi teg ko opposition bi et puis même on a une une une une presse une certaine presse mm-hmm. buy def de la manipulation et de la sale besogne article bi génn bërki démb rek RFI mm, waaw tey prouvé nii George benn société mm. buy def beaucoup de manipulation ci réseaux sociaux di créer ay avatar maanaam ay faux profil mm. di jéem a indi problème entre kër diine yi parce que diggante waaso ak waaso munoo ko taal Sénégal xam nga. ñu ñu jéem a créer conflit. mais mais Clédor bëgg naa bu sànq euh, li nga wax sànq que xam nga dañu ko extraire ci biir otoom euh, dugal ko ci yeneen oto est ce que da nga ni moom Ousmane Sonko a dem coyti ji wér gi yaram est ce que itam euh, nga xam ni ñoo ko war a defal yi fii nii yow tey jii en tant que analyste am nga njort bu rafet ci ñoom ñu mën a exercer defal Ousmane Sonko li ni mel. non loolu du ma ci mën a xuus de toute façon. Mhm. Ousmane Sonko nit ku ànd ak xelam la. Mhm. li ko war ci boppam moom ak ñi ko wër xam nañu ko man nag am naa xibaar